yëf yi dina metti eh, trop trop ci li nga xam ni moom mooy moom bon euh, ñu koy ñu koy ñu koy mosaw noonu lañ ko mën a waxee ah. mais euh, day dafay firndeel ko kenn mhm. Mhm. dafay firndeel que ni rek ñu ngi ci réew boo xam ne léegi am na yoon muy euh, euh, justice ci côté bu manti nekkee boo tooñee euh, nañu leen nañu la jël ñu yóbbu la ci yoon ñu teg la ci li nga xam ni moom mooy yoon moo tax fi mu ne nii war na tëdd ñetti weer yoo xam ni ci kaso bi teg ci joxe ndàmbaay gu toll ci ñaar fukki junni ci suñu ay koppar muy cent mille cent mille francs en attendant beneen plainte bi nga xam ni bu ba kër Mbuub la boobu nag xamuñu lan moo ci xew incha allah mais de toute façon mm-hmm. ak lu ci manti am mi ngi ci loxoy yoon te yoon ci def encore une fois li nga xam eh ni ah, moom mooy liggéeyam ci côté boobu zéro am na solo 78 140 56 56 78 140 56 56 appel direct wala appel euh, via le whatsapp rek pour ñi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu salaamaaleykum salaamaaleykum allo oui sëñ bi na ngeen def ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax doo ñu bal yokk kàddu gi tuuti waaw yaa ngi en direct ci Sunugal 24 allo Sunugal. acca bismillah foo ñuy woowee. yaa ngi. mu ngi sant bu baax alhamdulilah. foo ñuy woowee. Petersen d'accord yow rek la déglu bu baax. ma ne yow la ñuy déglu ci waxtaan wi. Hmm. nu ñu leen di. ah. ndeysaan. mais mhm. loolu mhm. mhm. waaw loolu xam nga lu nga naqari la. effectivement. voilà léegi nag loolu nag moom lu ci war a jóg la parce que yéen nekkul leen fi nekkul leen fi sàmm nekkul leen fi deema. effectivement. ñëpp ngeen fi nekk baa ja baa jaxal rek li mu wax moom li mu wax moom pour pour pour neex ku ne. Mhm. da ngaa jël teg nga paa bi bàyyi waxoon ndax wax ci neex la war a neex. Mhm. loolu laa amoon d' accord merci merci beaucoup merci nga nuyu waa Père Assane yëpp. Euh, c'est c'est très très important ce qu'il a dit parce que sànq sax moo ngi koy wax euh, bi nga xamante ni gars ñoo ngi def live bi euh, bi nga xamante ni verdict bi génn gars yi journalistes yi di xaar li nga xam ne moo di sortie famille yeeg ñi nga xamante ni ñoo di ci ñoo nekkoon seetaan ñoo doon seetaan audience bi allo salaamaaleykum waaw ñoo ngi leen delloo ziar foo ñuy woowee nag naka waa Bamako ñoo ngi lay delloo ziar bu baax a baax di kontaan ci yow. Mhm, merci beaucoup kontaan nañ ci yéen. Mhm. Mhm. faaw sénégalais xam ko kenn Euh, ligne bi euh, ligne bi dagg na ci moom waaw mën nga dugaat en bi mën nga mën nga daal dugaat euh, wéyal xalaat bi nga xamante woon ci waxtaan wi 78 140 56 56 fàttali leen la ñuy waxtaane bokk na ni ki sànq kaso yi nga xam ne war ko tëdd waaye itam dernière information bi ko jàppe woon ci wàllum njaayum terrain ak dóoru koppari jàmbur jamono ji nag di kaso ndax daldi teg ci ndoddam salaamaaleykum salaam maa ngi lay doole ziar foo ñuy woowee naka waa Norvège ah kon baax na ko yéen a ngi wàcc été <laughs> aja bismillah ndeysaan ndeysaan justice bi am indépendance ñi maa jaxate wala wax mu daan wax kenn ñëwu ko woon rek parce que maa maa eh, mu am sañ wax góor yi lu ko neex. te dara mhm. daan fekk léegi nag dëkk bi dafa am indépendance justice am indépendance. Mhm. li ma ci gën a neex. Mhm. mooy ña doon jàppaatee ka tegaatee ñoom di yóbbu nit di créer ay ku deful dara nga jàpp ko teg ko benn place.

déet déet waaye sëñ bi loolu ëpp na ëpp na di ma ne loolu ëpp na di ma ne ma ne loolu ëpp na di eh, ay deux ans que trois ans nañ leen nañ leen jéem a jubbanti rek xam nga nit ki moom su defee nit ki su juumee dañ koy ji dañ koy jubbanti rek tegaat ko ci yoon. Mm-hmm. Mm-hmm. yàgg kenn ñemewu la wax parce que dañ ñoom ñoo moomoon justice war toogal ci plateau wax sax mu ne dama tëj dama lay porté boo ko waxatee ma tëj la boo ko waxatee na région. Mhm. ah doy na waar merci merci bu baax a baax nga nuyu ñoo ñu. métti woon na rek. Mhm. merci beaucoup. léegi nag li ci des mooy. Mhm. Eh, déet waay. ah déet déet waaye kam kàddu yi nañ ko di gën di. Euh, euh, merci merci Dóor merci kooku mun nga ñu ko jéggal ba beneen vraiment euh, ñuy ñuy rafetal kàddu yu waay s'il vous plaît oui sëñ bi na ngeen def. aleykum salaam. ñoo ngi lay dooloo ziar mbokki fan. Ah, mbokki foo ñu woowee ci réew mi. ñu lay fay bu baax baax baax. Eh, <laughs> foo jaar yoon la <laughs> waaw yoon la yaa safi yow de. Hmm.

Mm-hmm. voilà comme bu yéen. seen patron yi ñoo leen di tënk parce que seen patron yi ñooy gis na ci seen kaw. Mm-hmm. parce que journaliste yi dañuy jàng am seen métier ñëw ñu jël ba pare di leen wax loo loo xamante si ni amuñu ci benn ressource bu leer. Mm-hmm. tegal leen ay feuille de route yoo xam ne ci la ñuy jaar nan la nan mënuma comprendre nan la journaliste toogee di défendre. patron ci loo xam ne leer na bul bul tudd tur nag bul bul tudd bul tudd tur mën nga wax nii rek mais jàpp li ñu ci bañ a tudd tur yi. mais heureusement que El Hadj Ndiaye il a compris xam na li xam na fi ko bëgg a dugal bu bañ ne du fi dugg mais loolu la fin yow da ngay tuutal sa bopp ci ñi lay seetaan. Mhm. boo demee bu ubbee sa entreprise de presse da ngay sa ay responsabilité mhm. ni ngay def pour am xaalis yow yaa ko xam. ni mhm. ngay def pour sa entreprise dox mais pas ay pression. groupe de presse yi fi nekk yëpp dañ fi bëgg a nekk di dundee ay pression. mais loolu loolu dafa war a jàppale yow nañu bàyyi caaxaan xam nga groupe fi ñu toll mooy di jéem a waxtu def. oh malheureusement ah euh, malheureusement euh, ligne bi rëcc na donc euh, ce sont les aléas du direct comme je l'ai dit chaque fois rek mhm. euh, mbir mi nag benn nen la donc dañ koy mayonnaise ku ci nekk rek da ngay capp daal di jox sa morom donc képp ko